l'encadrement avec euh, les coopératives, coopératives surtout, hein. avec euh, la définition des zones en fonction des, des potentiels. Donc je dis que euh, l'imam, euh, nous ne rachetons pas. Vacances agricoles, il lance d'un coup. Eh, liñ ci wax dañ ko wax bi ci kanamee mais da ngeen euh génné tableau inaugural bi ñu gis ci ni périmètre agricole bi yéen ko tuddé président Mamadou Dia mané ne loolu ñu rafetlu la parce que président Mamadou Dia d'abord c'est l'une de nos références solides en politique mom ak euh, professeur Cheikh Anta Diop à côté d'autres personnes ci li ñu représenté ci gis-gis ci xam-xam ak ci bëgg Sénégal toujours damay faral di wax ni on a un virage important euh, bi ñu bàyyee ñooñu romb euh, ñu gënale leen ñoo xam ne euh, tubaab bi lañ fi toogaloon ki njëkk a jiite Sénégal barki dem benn mag mu ma koy fàttali Podor <laughs> c'est ab français la woon am nationalité française moo tax bi mu jógee fii ñu yóbbu ko académie française parce que ku nekkul français mënoo nekk kon kooku intérêt France bi gënoon toogal tànn ko ci kanam ku mel ni Mamadou Diakhaté nga xam ne dafa gëmoon suñuy valeur gëm suñu culture am vision économique boo xam ne moom rek laa gis ci homme politique koo xam ne tey soo doon natt bind lu mat nu mu tuuti tuuti tuuti euh, juróomi juróom juróomi téere wala lu ko ëpp yoo xam ne ci gis-gisu koom-koom rek la ko bind moo tax mu doon reyukaay si ñun waaye li mu waxoon ci mbay buñ ko toppoon li mu commencé woon 1957 ak 1962 politique agricole bi mu définiroon daa di génne ay créer des institutions de financement loolu daf ci am solo ni ñu jaar yëpp ci àll bi nit ñaa ngi jàmbat problème financement pratiquement agriculteurs yi tey banque bi la ñuy liggéeyal ay taux de d'intérêt de 12 pour 13 Nous cent mu génn ay banque yoo ne uniquement pour financer la

coopérative yooyu amoon na doole tey soo demee dëkk bu mel ni euh, États-Unis coopérative yi dañoo am doole nit ñi dañu foog ne coopérative mm. affaire communisme la mm. Mm. y a pas plus libéral que les États-Unis te mbay mi agriculture yi ci ay coopérative yu am doole ñu dem ba am seen i banque bopp am ñooy joxe matériel bi ñooy joxe lépp moom mu amoon gis-gis boobu def ko ba pare nag ànd ak ay boroomi xam-xam ñu étudier Sénégal ba xam zone bu ne lan la attan parce que zone bu nekk dafa am spécificité ci wàllu suuf suuf bii ñu am fii bokkul ak suuf bu nekk euh, xaw naa jege bu nekk Casamance waaye bokkul ak suuf bu nekk euh, démb Louga gi ñu jóge nga xam ne sol joor bi la euh, bokkuñu consistance bu nekk am na tey soo bëggoon def ceeb Louga mënoo ko fa def peut-être léegi ñu ngi commencé def riz riz des riz ak yu demee noonu mais li ñu gën a xam ci ci ceeb mooy zone yu mel nii mm-hmm. mais zone yooyu ñoo gën a adopté par exemple ci maraîchage moo tax zone des Niayes zone doon zone maraîchage ci Sénégal donc yooyu yëpp mu dajale woon ko teg waaye keroog bi ñu ko fi xeexee ba jëlee ko fi la ñu yàq politique yooyu yëpp créer ay intermédiaires ay opérateurs yoo xam ne bàyyi ñu sonn ñu mm-hmm. waaye tey li ñuy am ci mbay mi baykat yi amuñu ñoom ñooy capté banque yi ak opérateurs yi ñooy capté xaalisu mbay mi yëpp waaye baykat bi ne ci àll bi nekk ci naaj bi nekk ci ndox mi lu ne mu daj ko mm. moom du ci am dara daanaka mm. kon c'est un plaisir su ma gisee ngeen jël ko mel ni kooku mm. tuddee ko seen périmètre bi euh, hommage la bu ko rendre te c'est un hommage mérité rek laa ci bëgg ci lu gàtt moom da nga soxla wala nga jox ko. après nga ji ñu kii waaw. Eh, la chaleur. waaw d'accord waaw. boole maraîchage bi moo tax ñu am trois fois seen dàll yi Abass mën nga jaar yow mën nga jaar problème mooy mi ne jara mais mën na jaar 休息吧，随便讲。 parcelles yi Alright, they got it. Somebody got it. Idi kooku filmé kat bi ci gannaaw Idi kuy filmé kat la Idi ಇದ್ರಿ fekkee su tawee rek affaire bi jógaat wala soo andee ndox doit être dû si bi après tool bi nag yi lekk na feneen ruuj bi dese yi ciy bàyyi defaat boo koy xàmmee nag a pra se fez cette année. Et, et, et, ak yeneen yoo xam ne lépp soo ko yàlla def daa kontaan na jërëjëf donc xam naa ne après je vais faire la déclaration d' ici. léegi dinañ koy may rek mu taxawee noonu quoi. non fële laa koy Thank you. pisan eh. Bagi bagi bagi aku entar dari dia. Halo. Halo. Você bom, alguém. Cara. Вот он. surtout ci zone yu mel nii dina am ay problème yu ciy am bokk na ci xorom gi nga xam ne day dem ba taxaw ci suuf si wala moom suuf si ak yu ni mel bi ñu leen di jox fii ni fële mel la meloon ay ab àll la woon ay garab nekk fii ak yu mel noonu donc ñoom laataa ñuy bay bëri na koo xam ne sooy bay da ñëw rek daal di labourer Henrique. Ah, eu... daaneele suñu kàddu nag ci dekki lenn ci suñu programme politique bi nga xam ne waxoon nañ ko ci suñu euh, campagne électorale mu nekkoon ci programme mu jot naa bi mooy moom dañoo nekk fii Ndar euh, fleuve Sénégal ñu tiim ñu jàkkaarloog moom fii barrage euh, jamaa bi ñu ngi fii ma fàttali ni bokkoon na ci promesse de campagne yi waxoon Sénégalais yi mooy revitalisation des déplorer ci suñu autorité politique parce que 1993 le gouvernement Abdou Diouf le premier programme né dañu bëgg revitaliser les vallées fossiles ci naka lañ koy revitaliser moy dañuy dem tank tout ci fleuve Sénégal surtout nak jamono cru, tank tout ci fleuve Sénégal xëcc ndox mi mu ñëw irriguer fi nga saa yu Mauritanie yëngatoo ñu daw ba loolu nag laa xamul naka lañ ko mën a nangoo te nee nañu bon voisinage ba li ñu bokk ñun te ñun ñu ëppale ci muy gaz bi ñu ne bon voisinage moo tax ñu nangu def ko cinquante pour cent cinquante pour cent pour rafetal waaye nag bon voisinage ñaara koy dox parce que su doon dañuy yàq fleuve bi sax ñoom Mauritanie ñu bokk ak ñoom li ñuy wax OMVS ne réew mu ne Amna sañ-sañu tank ci fleuve bi lu weesuwul 6 milliards de mètres cubes par année 6 milliards de mètres cubes par année lool la OMVS wax rawati na jamono kuri nga xam ndox mi lélé day bari bari ba di andi musiba parce que problème brèche Saint-Louis bi ñuy ñuy ñuy tuddu tay nga xam limu ray ci nap kat Ndar kenn xam nu mu toll lan moo ko andi won 2003 kuri bi dafa am ndox mi toll foo xam ne barrage Manantali mënatu ko wonté

ba tay xamuñu fuñ koy soti soxor nak wessul nga ne ndox mi atalatuñu ko ma ngay occuper mu ngay inonder suñu village ñi ngi ubbi barrage bi pour mu mëna dem ci géej gi ba di menace ay dëkk nga ne duñu tëx tànk ci ndox mom pour dundalaat suuf ci mu permettre ni ñu def agriculture lolu faiblesse d'état la bo xamne ne man mënuma koo comprendre ma réitéré fi nit bu yalla nun di xawma kan may buñu yalla denkon ñu dem jël conformément nag à la réglementation de l'OMVS dinañ jël li ñu soxla ñun fexe ba deqilaat suuf si dans tout le cinq nord du pays ba nit ñi mën faa def mbay mbay mën faa sàmm waaye mën faa def sax ay pisciculture ak yeneen activité may daaneel nag ci lancer encore un appel lii ñu comptabiliser la production agricole Macky Sall def ko ci bilan on a fait tant de euh, de tonnes de riz tant de tonnes d'arachide tant de tonnes de kanja tant de tonnes de ñebbe suñu mbay mi def da ci nek mom moo koy dugal ci bilan kon ñun réew mi la ñuy liggéeyal ñuy lancer appel toutes les initiatives privées Amna ñun ci commencer parce que fii ak année